arbitre bi siffle le deuxième combat de la soirée Niang Ballo Aidara Aidara mbokk yi moom la ñu jàkkaarloo Niang Ballo moo nu woon gannaaw ñoo ngay lewaatoo journée Ndiaye production ñaari xale yaa ngay lewaatoo ah Aidara cokkaas na léegi Aidara cokkaas na léegi Niang Ballo Aidara daw na jël Niang Ballo ñang baalo jàpp xale yaa ngi noonu ay dara ngay dóor ay dara ngay dóor fàq na ko léegi ñang bañ ñang baalo ay dara ay dara moo ñu wat ñaari xale yi dañoo xaw a neexoo ñang baalo ay dara xale ya jàppante nañu ñaa baalo ay dara ñaa ngi koy ëñ na ko léegi waaye ay dara daa bañ na ma dem ñaa baalo ay dara ay dara ay dara ñaa baalo ñaa ngi loxo ba Talla génnee na loxo ba waaw dugalaat na ko fa nga ko génnee woon baaxul ñang baalo Aydara Aydara encore ndengeñ déggal ma supporter fa mu jàpp baax na Aydara fa mu jàpp baax na lu mu koy def ñang baalo ay dara ñang baalo ay dara ñang door na doar na nang baalo ay dara ku ci nekk day bañ a juum ay dara ngay dóor suuf ñang lu mu ko bëgg a def da koo a Aydara a koy Aydara kal na ko kal na ko kal na ko génn nañu waaw waaw xale yaa ngay bëree Tidiane Balo Aidara cokkaas na léegi eh waa lii lan la eh eh lu muy def nii Niang <laughs> Balo xale yaa ngay xeex Niang daw na sàcc ko Aidara da koo Niang a ngay xeex yaa ngay xeex waaw waaw comme abit loo bëgg xale yaa ngay bëree eh